maa ngi taxaw nii ak euh, Maguette euh, si moom mooy ki nga xamante ne rek chargé des élections euh, fële ca coalition bu parti démocratique sénégalais maa ngi lay dalal ci 7TV. waaw maa ngi leen di nuyu di leen remercier. nga bokkoon ci commission date ak transition déjà lan lañu mën a. ak candidature lan lañ mën a jàpp ci boobu boobule commission. voilà commission bi ñu ngi soog a pare sunu liggéey. dañ doon waxtaane date maanaam kañ la ñu war a jàpp pour euh, proposer ko président pour euh, mën a jàpp élection bi mais aussi euh, xool nan ñan ñooy dem ci élection bi maanaam candidature alors pour la dat ba ñu waxtaanee ñu bëre joxe nañu ay proposition yu bëre mais compte tenu de la loi électorale buy wax ni au moins diggante ba ñuy jël décret buy convoqué corps électoral bi ak euh, bis ba ñuy def élection dafa war a am au moins quatre vingt jours donc loolu dañ ko waroon euh, dañ ko waroon sóoraale mais aussi ñu war a sóoraale nawet bi sooraale koor gi euh, ramadan kii bi carême bi ak daaka bi moo tax daal ñu jàpp mois de juin la ñuy proposer pour ñu def élection bi léegi nag dimanche bu njëkk ci mois de juin le 2 ci la ñu la ñuy proposer pour ñu def le premier tour su second tour amee nga xam ni au plus tard le 26 juin euh, juin dina fekk ñu pare donc loolu la ñu jàpp pour la date. ndax tey lii di datu 2 juin bi am na consensus maanaam ñëpp ànd nañ ci. waaw am na consensus quand même malgré que comme ni ñuy wax rek xam nga consensus du unanimité am na ñu proposé woon ay dates yu bëri mais ba ñu waxee loolu si biir synthèse bi ah gaa ñi jàpp nañ ni loolu war na mën a am comme nu ma ko waxee soo considéré lépp. lu jëm ci nawet bi parce que président dafa ñu woon ñu def fexe ñu proposer ko date balaa nawet bi di dugg alors loolu on a tenu compte de ça ensuite euh, délai ba nga xam ne bii mooy dox diggante décret de convocation bi ak datu élection bi mais aussi ak fête yi ak daaka bi yooyu moo tax ñu jàpp juin donc nit ñi apparemment ñëpp ànd nañ si quoi. jërëjëf lay jaajëfal dañuy dal di